dafa am solo muy nga yor jabet wala nga ñàkk koo am ndaxte dañuy soxla euh, tout le temps vitamine sel minéraux euh, loo xamante ni dafa ñuy permettre ñu mën a booster suñu système immunitaire euh, daw yenn xeetu feebar yi donc te fruit dafa am suukar te buñ ne suukar xam nañ ni moom mooy indi diabète maanaam sa indice de glycémie taux bi bu élevé donc ci la ñuy wax ni nit ki am na jabet maintenant ndax jab ki nga xam xamante ni dafa yor diabète war na mën a lekk ay fruits si war na ko mën a lekk waaye dafa am juste nu mu ko war a lekkee ci ban fréquence euh, yan euh, fruits la war a éviter fruits yi nga xamante ni ñoom seen euh, indice de glycémie dafa donc moom laa fas yéene waxtaane tey léegi comme ni ma ko waxee léegi ki nga xamante ni moom moo yor diabète dafa war a def attention am suukar dinañ si lim ci fruits yooyu li ci mel ni banaan bi nga xamante ne dafa jaune ngam dafa ñor ba ba nooy lo euh, maam si bu di image bi euh, jàppandi na voilà li ci mel ni banaan bi euh, moom dafa bëri suukar donc ñu ngi ñaax ñi nga xamante ne dañoo diabétique ñu éviter ko au maximum privilégier li di banaan verte bi ndax moom moo bëriwul suukar li ci mel ni daanaka pamplemousse ak euh, cerise ak raisin nekk na ay fruits yoo xamante ne ñoom euh, bariwuñu suukar ñuy ñaax diabétique yi ñu boole ko ci seen alimentation euh, waaye Euh, bu ñu nee euh, dañu yor jabet rek dañu war a euh, bàyyi suukar ndaxte suñu yaram dafay soxla suukar nañuy privilégier li si mel ni sucre lent yi parce que am na ñam yoo xamante ni seen indice de glycémie bëriwul taux bi dafa faible donc ñoom dina tax boo ko boole sa alimentation dina la musal bu baax ci suukar bu yéeg donc élément yooyu nga xamante ñoom ñoo am ay sucre lent parce que euh, dinañ si lim li ci mel ni euh, pomme de terre nga xamante ni mais biñ ci tàmm mooy euh, bi nga xamante ni si bouilli dañ ko baxal ñu moytu bi nga xamante ni dañ ko def purée ak bi nga xamante ni dañ koy malaxé ñooñu seen indice de glycémie daanaka dafa xaw a yéeg ñu jox leen benn astuce pour ñi nga xamante ni dañu lekk repas boo xamante ni gis nañ ni dafa bëri suukar ñu ragal seen taux de glycémie yokku li ci mel ni citron baax na nga def ko ci kaasu ndox kaasu ataaya. di ko naan waaw di nii nga pressé ko wala da nga koy mélanger ak ndox. da koy mélanger ak ndox nga def ko ci kaasu ataaya moom bëriwul suukar donc bu dee da nga lekk loo xamante ni bëri na suukar nga euh, nga ragal su suukar yeeg naan ko da koy wàccee euh, bu baax donc euh, comme ni ma ko waxee léegi donc dañuy éviter au maximum fruits yi nga xamante ni dafa bëri suukar li ci mel ni pastèque moom dafa bëri suukar. ah pour man ndox la bëri. da bëri na ndox mais dafa bëri bari suukar. Ah. donc c'est à éviter jus de fruits yi donc nañ ko éviter au maximum les jus locaux euh, fruits yi nañ ko lekkee noonu parce que déjà euh, dañuy soxla euh, fibre. alimentaire fruit da koo am légume da koo am euh, te fibre yooyu bu duggee ci suñu deret dafay ralentir euh, euh, suukar bi nga xamante ni dafay yéeg ci deret bi donc nuñ ko lekkee noonu ñu bañ ko defar ñu réaliser en jus. ñun dañoo bëgg ay salade de fruits yooyu parce que sujet bi mhm. dafa mérité yaatal waxtaan. Mhm. Ah, c'est bien de revenir justement sur les indications des fruits à prendre. Mhm. mais bu fekkee ne dañoo dugg ñu ne ñun salade de fruits ba dañ ko bëgg suñu papa yi bëgg ko. suñu yaay bëgg ko suñu jëkkër yi. bëgg ko ah, kon bu fekkee ni ñuy salade de fruits. Mm-hmm. baaxul. mixité de fruits boobu. voilà baaxul si diabétique. voilà parce que tout est question de portion tout est question d'équilibrage. Ah, da ngay sa wax gi yokk nga wax ca kaw nga leeral ne. ñi ah. diabète ngay waxal. ñi diabète lay waxal. ñi diabète waaw ak ñi bëgg diabète parce que il faut éviter il faut éviter jus de fruits il loko waxkat ñi. waaw ñi ñi sàmm leen wax leen mu leer ñu xam ne ñooñu ngay waxal. voilà ñooñu lay waxal. Eh, fruit moom dafa baax. ak ñu bëggul diabète. <laughs> ak ñu bëggul diabète. Ah. ñu bëggul diabète ñu moytu yi nga xam ñam yi nga xamante dafa bëri suukar. parce que voilà indi sa euh, diabète li koy indi mooy suukar bi yeeg wax dëgg yàlla baax waaw pour ñi nga xam xamante yorewuñu jabet mi ñi nga xam dañ ko yor vraiment dañ ko éviter au maximum euh, li ci mel ni jus de fruits comme ni mu ko waxee léegi ñu éviter ko euh, jus yi nga xamante dañ koy defar euh, ñu ñu lekkee noonu fruits daal moytu jus locaux yeeg boisson sucré yi confiserie yi ak chewing-gum yi. luy confiserie. confiserie mooy ay tàngal. Ah. ay genre yu donc loolu yëpp. parce que donc lépp luy famille tàngal donc confiserie lañ koy woowee waaw. lépp loo am na mhm. xam nga jabet euh, dafa nekk euh, feebar boo xam ne dafay héréditaire maanaam bu ma amee jabet yaa mhm. chance que sama doom am jabet mhm. mais tey jii ñun bari nañu ay ay ay fruits yoo xam ne maanaam mën nañ ko utiliser comme li ngay wax nii mën nañ ko presser mais duñ ci dolli sukkar Mhm. parce que d'habitude bu ñu defaree suñu jus yi dañ ci dolli sukkar sukkar bi ngay wax naan maanaam sukkar lan nga xam ne moom moom mooy gën a gaaw a joxe jabet mhm. boobu noonu maanaam boo waxee nit ñi bii ak bii la ñu ko éviter ko mhm. seen saa dinaa gis am ne benn sucre roux boo xam ne sax ñu ngi koy jaay nit ñi di ko jël di ko defaree di ko defaree ay jus donc yooyu tamit baax na ki nga xamante ne nga amul jabet mu fagaru parce ki nga xam ne am ko moom déjà war na mhm. jël ay prédisposition am comme quoi am na yenn yoo xam ne waruma ko lekk mhm. parce que su ma lekkee j'ai de fortes chances mhm. bi feeñ ci sama yaram mais nga xam ne amu ko te kooku tamit a bëgg a boppam donc ci sucre yu nga xam ne yooyu ñu ngi koy utiliser parce que jus yi ñuy defar suñu jus yu bari na yooyu tamit ñu bàyyi ci xel exactement c'est-à-dire ki nga xamante ni dafa yor diabète moom dañ koy tere carrément lépp lu boisson sucrée lépp luy lu de fruits de fruits yi nga xam ne dañ ciy def dañ ciy ajouter sucre sans sans sucre ajouté aussi donc dañ ko koy tere mieux vaut que mu lekk privilégié fruits yi nga xamante ni bëriwul sucre pour ñu ki nga xamante ni nag amul diabète moom li ñu koy ñaax mooy que mu moytu euh, euh, sa lekkin peut-être ñam yi ngay lekk mu bëri trop trop trop suukar kooku mën na lekk mën na naan li ci mel ni jus de yi ak jus locaux yi ma wax léegi mais ki nga xamante ni dafa yor diabète jus locaux mooy yàpp mooy jus yi nga xamante ni moom la ñuy defee moom la ñuy defaree ak euh, fruits yi ah jus naturel yi ah yi nga xamante ni. mooy comme mixeur yi boo jëlee sa mixeur tay nga defar ko. voilà ay wala bisaab. voilà c'est la même chose ça aussi ça fait partie mhm. donc yooyu dañ koy dañ koy tere ki nga xamante ne moom mooy yor diabète bi donc bu ñu bu ñu euh, aussi damay ñaax euh, diabétique yi parce que ñoom bu ñu xamee ne dañu am diabète ñoom pour eux euh, pour dañuy supprimer lépp luy suukar mm. alors que suukar aussi dañ koy soxla ba tey donc le le le mieux ce serait de moins en manger de ne pas voilà pas euh, euh, supprimer ko carrément si sa si sa alimentation parce que mm. sucre déjà day améliorer li si mel ni euh, l'endormissement maanaam da ngay mën a nelaw bu baax guddi bu jotee donc dañ koy soxla aussi pour am beaucoup d'énergie donc ñu bañ ko carrément supprimer parce que dañ koy def ba pare seen lekkin bëri graisse su ko defee ñu am un surpoids et le surpoids c'est un facteur aussi favorisant le diabète mais yenn saa yi da gis ñoo xam ne du ñu lekk sucre diabétique yi ba la ñu mm-hmm. dem comment diabétique ñooñu mhm. à ce moment la foog ñu jox leen sucre pour ñu yeewu donc mhm. li nga wax ne sucre si ñu mhm. ko bàyyi bàyyi ba yaram dafa soxla sucre dafa soxla sucre dafay soxla insuline exactement parce que fruit dafa da comme ma ko waxee léegi dafa ay fibre te fibre yooyu déjà dafay améliorer euh, defarum insuline bi nga xamante dañ koy soxla pour réguler suñu euh, taux de sucre bi nekk cegaataan yi xeetu fruit yu bëri sucre dañ ko ba laata nag ah li ci mel ni banane jaune nañ ko ba eh li ci mel ni euh, xaal nañ ko ba eh, ah, ah. Mm-hmm. yow. pour ñi nga mm. xam ne moom lu mel ni nan ko bàyyi. Oh. kana kay ba. ki yor jabet non ma wax na ko nee na ñi jabet. na koy répété. <laughs> ki yor jabet. ayca <laughs> très bien en tout cas merci beaucoup on note pour mhm. ceux qui ont des parents diabétiques. ou mhm. qui ont des enfants diabétiques. parce que le diabète justement euh, touche vraiment euh, kii bi yëpp. Mhm. Euh, kon ñoom bu ñu lekk banane jaune bi. xaal bi buñ ko lekk xaal bi buñ ko lekk ñoom la ñuy waxal bàyyi sa yo tu bien portant macha allah voilà donc yow mën nga lekk xaal mën nga lekk mooy xaal bu saf suukar bu xonk bi ñor pastèque bi waaw pastèque melon ki nga xamante ni euh, dafa yor jabat mën na ko lekk ah, mais pastèque bi na ko éviter. Mhm. Aïcha très bien. parce que mën nga lekk parce que mhm. mën nga lekk banaan bu jaune bi mhm. mën ko lekk. Aïcha en tout cas merci beaucoup. mi ngi doon laata ñuy ndar képpe émission bi dama am lu ponkal lu rëy luñ ma defal. Mm. te nag teraanga àddina bët bët. dafa am euh, sama euh, dafa am ku ma tuddee doom Baye Sane te xam naa ni suba teel gi yëpp la macha allah mm. <laughs> bébé Asma Khadija euh, baayam moom moo ma ko tuddee depuis lundi ah c'était vraiment avec beaucoup d'émotion que j'ai reçu la chose c'est mon <laughs> premier tourondo mm. ah, donc yaayam ñoo ngi fële ci Rufis ak papam Yakumba Mané donc Asma Khadija Mané ça félicitations félicitations félicitations félicitations vraiment doom jooju kilifa ba mag amiin waay ànd ak xéwal ak wërsëg waajuram yëpp fekke tal. amiin yaa rabbi barke saat Fatiha alxuraan ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñu fekke njëriñam ba mu. amiin ko ñëpp fekke tal voilà. amiin waay ñun ñëpp ñu fekke ko macha allah félicitations. merci beaucoup kon de kon de sab sas. dëgg li mm-hmm. ah. ah sama ab sas. saw sas. ah waaw waaw saw sas. waaw waaw talal la sasoon. Mm. Ah. yokk doole na ci. léegi walis bi kañ lañ koy yóbbu. incha allah waaw normalement dimanche. Mm. dimanche léegi nag woon woon naa si ñëpp nag. <laughs> dëgg la ah. bés du tuuti borom lay tolloo ah, te turandoo day jël juróom ñaari jukkoo mm. feeg yéen a ngi apprécier rek indi leen mm. valise bi <laughs> inchallah Aïcha voilà justement c'est dans la bonne humeur la bonne ambiance qu'on vous remercie de nous avoir suivis depuis ce matin Nafisatou yow mi euh, mujjee euh, rubrique bu am solo soos nga xamante ni yépp am solo sax mi dafay baax ñi nga xamante ni dañoo am ay feebar yoo xamante ni dañ koy doxantoo mhm. wala di ko doxaale mhm. ñu gën leen a orienté ngir ñuy gën a am wér gi yaram ndaxte ñu yàgg moo ñu gënal mhm. fuuf fuuf fuuf sax. merci beaucoup à toi lenn rek la fàtte. mooy ma dafa ñun ñëpp ñu koy fàttalante. ñaar la ba nu xëyee. suba ñu jël laaj. <laughs> yéy que Sénégal yëpp la wax ak réew. Mm. pour mu dox foog mm. mm. <laughs> laaj day xëy di di di yéy laaj. laaj day xëy baa ko ba pare baa bëggee xet gi dañ nga jël persi. Ah. teg ka si yéy ka. Ah. Ah. xet gi dañ nga boros. dox sa dox. daa nekk la baax beneen ba citron à l'eau tiède bay xëy moom li mu doon wax mm. ñun naan ko mm. daxaa dindi la bari ñenn ñi sax ne ñun dafay faj cancer. day rey sax saan aussi. loolu nañu koy ah, laaj bi day rey saan waaw laaj bi day rey ah. a quotidien moom tous les matins ah. xam nga ku nit ñi bu ñu amee kàttan dëkk dox. Mm. Mm-hmm. moo tax xel yi naat génération bu ñëw gëm naa ni Asma Khadija mu daw bi bu màggee bay def présent. macha allah te day neex merci beaucoup différence. da <laughs> jaajëfal bu baax di jaajëfal itam sujet wu Nafissatou surtout ñi mm. am surpoids. Mm-hmm. ah man gis naa ci sama bopp bu baax. Mm-hmm. war nga ñëw ci régime boo xamante ne dafay tax ñun ñu mun a mm-hmm. éliminer suñu surpoids de graisse yu am. di jox di daje incha allah ci rubrique éducation samedi. incha samedi ce sera la petite.